ñàkkum kaaraange lu am la ci capital bu senegaal waaye ci commune bu HLM liñu mel dañ ko fay faral di di nemmeeku buñu sukkandikoo sax ci délégué de quartier bi lu yàggul dara am na ku fa ñàkk bakkanam jaare ko ci xeex. il s'est trouvé que depuis ñu déplacé euh, nit ñi nga xam ne ñoo nekkoon excusez-moi du mot la cité imbécile il ñu ci bari ci ñoom. dañuy ñëw wàcc si fii ci HLM bi te xam nga loolu nag dafay indi ay mbir yu bare parce que agression bi ci lay jóge parce que seen lekk dematul noonu waaw am na nag yeneen yu nga xam ne xew na ci cité bi mu barki démb rek am na ñu nga xam ne ñaari ñaari xale yu nga xam ne jamante nañu ba kenn ki dee na waaw fii ci HLM 4 yooyu yëpp yooyu yëpp xam nga tam dafa dafay indi insécurité dans dans dans la commune. ñiy dëkkee foofee ca HLM di xamle ni. ñoom ci tiitaange lañ dëkk ndaxte lii di agression yu bëri. fii këf saak yomb na fi borom histoire nee neex na yi këfee saagu jàmbur yi daw nit day yor saagam ay millions moo kenn nangootu sax sol saak da ngay sol saak pour ñoom dara si ñu këf sa saak dem sa fekk dara néew si. barki dem fii benn femme nanu nanu nanu agressé fi buntu mairie bi saak ne ay millions si nekkoon femme dafay jooy ba da nga koy yërëm. parce que fii moom chaque jour nga dégg fii ay ay ay ay nit ñoo xamante ne dañuy dañ leen agressé fii koñ bi surtout fii. fii alliance bi à partir ay 4 heures 5 trois 3 heures ñuy xëy chaque jour ñu am fi ay gàllankoor waaw fajar bi da ngay gis sax loolu am ku ñu agacé di yuuxu kenn kenn du génn pour dimbali ko. donte ni délégué de quartier yi ak mairie bi ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir aar askan wi lii di ndimbal jóge ci état ñu ngi koy xaar bu baax. renforcer ko renforce bi nag man ah, ah, li ma ko xalaati rek mooy que état bi jàppaluñu jàppale maire yi wutal leen ay ay nit yu nga xam ni ah, daañu ma a jàppale dans le cadre de la sécurité surtout nag ak marché HLM marché HLM moom doy na waat trop. xanaa gouvernement bi ak maire bi jàppale ñu rek xoolal ñu ay sécurité yu doy indi ko fi mbaa bu du loolu booy koñi suñu manko xam nga mun nañ def lu xamante ne après dañ ci am problème parce que dañuy waa koñ bi waaw vraiment xale yu koñ nekk fii moom. bëgg nañ jàppale koñ bi wante gisuñu ko leen jàppale loolu mooy problème bi. nan ñu jàppale sécurité bi suñuy parents surtout maa suñu doom yi man dama am njaboot dama am doom xale bu ndaw laa am doom nan ñu gérer suñu sécurité quoi waaw loolu lay ñaan quoi. ñàkkum kaaraange ci biir HLM mi ngi gën a am doole ginnaaw ba ñu jëlee ñi nga xamante ni ñoo dëkkee woon ca cité imbécile ci seeni bërëb li ni mel la askan wi ñu denk seen kàddu xamle.